yàlla dool leen ngërëm te moom sax yàlla laafaale ko ci biir ngërëm la ba mu taseeg sangam bi nga xam ne mooy sangub ñépp ñépp te mooy muhammad dana ko yàlla dolli teraanga nag mook mbokkam yaag saxaabaam yooyu nga xam ne yàlla leen yëkkati ba ñu kawee kawe bu mel ne asamaan hada jàppal lii wa indi naka man al ji tey jii bu ijaabatin boroomu wuyu baadal muridiina lenn ci taalibe yi dawil inaabati ña di woroomuk tuub manes naa waxit bu ijaabati baadil muridiina boroomuk wuyu laa ñenn ci taalibe yi xadd talaboo sàkku nañu nadman way xawaa wow làq na te adduban teggiinu li yata addaboo ngir ñu teggiinu wa loolu wajaba war na it ngir kullu man képp koo xam ne raama sàkku na ittibaaxan ak topp bi xëyri ci lu dul teggiin fa innahu naka kookee yuxramu def na ko xañ fawsan texe wanti faaxan akuk jariñu mu ne gannaaw nag sant yàlla ak julli ci yonante beeg tagg saxaaba yeeg ñaanal leen ngërëm li ko tax a jóg nee na mooy bëgg defal ñenn ci taalibe yi lu ñu sàkk woon ci moom ndax ñenn ci taalibe yi dañoo sàkk woon ci moom mu taalifal leen taalif woo xam ne dañ cey mën a xame teggiin ndax bëgg amee ay teggiin rekk te mu ne loolu kat lu war a la mënta ñàkk ndax ku bëgg a topp yàlla bëgg a am ngërëmam te boole woo ca teggiin doo am ngërëm la dañ lay xañ ngërëm la xañ la texe xañ la jariño teggin moom mooy lépp waxoo moom teggiin xayru kansin mooy ngën ji am koom fit daare ni ci yaari kër yi waxayru ma te moo gën lépp loo xam ne intaza tedde na bi ci moom duuxi zin borom tedd nga li annahu ngir naka moom mu naw wérul janaani mooy aji leeral xol kama yuqarribu ni muy jege ñale ilal jinaani jëm ci ajana ya wa yoo jibu tam yi waral almadha tagg wa la dal jiraani fa dëkkandoo ya teggin moomu day nee na lépp luy naa am koom la mu dul jeex teggi na ko gën lépp lu nit jàppe teraanga bëgg koo def teraanga bëgg koo def daraja na xam ne teggi na ko féete kaw teggin moom day tax nga sori sawara jege àjjana teggin day leeral sa xol say dëkkandoo di la tagg ka ñaanal ndax teggi leen gis nga amee ko te jóg naa nag musrixan may aji gaaw ilal jawaab bi jëm ca tontu la wa arte jiite maa ngi yaakaar arrida ngërëm la maxat sawaa bi ànd ak yool ba ne moo tax mu jóg fi saasay saasa dal leen di bëgg a taalifal téere bi maa ngi yaakaar ci yàlla nag mu gërëm ma ci taalif gi ma taalif téere bi faye ma ci tuyaaba ju amul àpp madmunuhu la mu làmboo nasrul wali mooy wesaru wali wa alxaaji te moo di alxaaji wa artaji te maa ngi yaakaar bi ci moom qada alxaaji pajug aajo li jamxihi ngirug booleem maxaxtisaarin ànd ak gàtt jullama li ëpp ci li nga xam ne farraqahoo tasaare woon na ko almusannifoona way taalif ya alqudamaa u ña di way jiitu wa kullumaata lépp loo xam ne xal la néew na bu iktifaay ànd akuk doy xayrun moo gën minal kathiiri ci aji bari dil xanaay ji boroomub coona taalif yi nag nee dama fekk lu waaju baax wesaroon ku tudd alxaaji ma woy ko nag muy téere bii maa ngi ñaan nag yàlla maye ma ci pajub aajo maye ko ci bokki jullit yi bokki taalibe yi li tax nag ma taamu wesaru sang boobee mooy dama gis mu gàtt ba noppi daanaka lu taalifkat yi tasaare woon ci seeni téere rek menn moom rek dajale na ko ci wesaram woowu nga xam ne soo fabee wesaroo way ko day mel ne boole nga mboolem téere yépp yépp way lépp nekk ci benn téere te mu ne noonee mu def gàttal ba noppi ëmb lu baree bari xéewal la lool ndax lu néew loo xam ne soo ko toppatoo mu doy la moo gën di lang-langee lu bari loo xam ne da nga cay sonn te xëy na sax doo ca jariñoo noona na bamtu way naa ko nazman way xawaa wow làq na almanaafiha njariñ ya bi fadli man ci ngëneelul yàlla mi nga xam ne waxada dële na mooy dige na an yu daafiha ci mu fegal nu nun way gëm ñi inna allaha yu daafihu anil ladina amanu laal lan yi ndax lee man ah wi danaa làqi bi ci moom ar ridwaana ngërëm wal am na ak wóolu yowmal xaw fi ca bisub ragal ba wal xufraana ak njéggal dama fekk wesaru sang boobee ma way ko muy way wii nga xam ne ëmb na njariñ yu baree bari te xam naa ne loolu lépp mbaaxum yàlla yàlla mi nga xam ne moo warlu aar nu fegal nu nun ñi xam naa ne mbaaxam ak ngëneelam moo tax téere bi ëmbe nii ay njariñ yu bare bari matalee nii li ëpp ci li ñu yittewoo ci teggiin moo tax nag may yaakaar ci moom yàlla taalif gi ma taalif téere bii mu maye ma ci ngërëmam maye ma ci mucc ak njéggal rawante na ca bis ba nga xamee ne ci la ñuy a taamoo mucc ak njéggal te mooy bésub ragal boobee muy bisub penc boobee aleykumoo dénk naa leen yaa ma'shara tullaabi yéen mboolem way sàkku ñi su suma aleykumoo topp dénkaat naa leen bidal jawaabi ci li la tontu fii nekk na ci moom minal axlaaq yi ci ay jikko wal aadaa bi ak i teggiin maa loo xam ne sa yaquudukum xalsat na leen a wommat ila sawaa bi jëm ci nekk na ci moom minal irshaadi ci ab jubal wal ifaadati akuk jariñ maa loo xam ne laa ya màllu du yoqat min ci moom du iraadatin boromuk taalube boromuk namm yàlla wa yastawi te dana yemoo mubtadiun aji door tàmbali wa muntahin ak aji yegg fi nafihi ci njariñam wa xayruhu te yiwam wa laa yantahi du jeex mu ne yéen ñi nga xam ne nag yéene wut yàlla ba tax ngeen di bëgg a amee teggiin yéen ñëpp maa ngi leen di dënk te di leen dënkaat téere bii ngeen jàpp ko bu baax a baax ndax li mu ëmb ci ay jikko yu rafet ak li mu ëmb ci ay teggiin ku ko xam te jàpp ko jéem koo jëfe rek loola mën na laa yóbbu ba nga bokk ci ña juba jub bokk ci ña jariñoo jariñu bokk ci ña texee texe li téere bi ëmb ci luy jubal nit ak lu koy jariñ bari na bariwaay boo xam ne képp koo xam ne danga ne yàlla laay wut te muy dëgg ci yow doo doyal mukk ci téere bi téere bi du la sàppi mukk mukk te it ne ki jóg di jéem a xam teggin ak di ko jéem a toog a topp moo ko defe ne àgg na ci xam ak jëfe teggiin ñoom ñëpp ñoo yemoo ci ku ci ne man ngaa jariñu ci téere bii téere bii njariñul ñëpp la kay door a jóg di xeñtu teggiin ak ka defe ne àgg na ca àgguwaay ba ci teggiin ñoom ñëpp ci mën a jariñu yiw yu téere bi ëmb daal amul fu muy yem id ngir xat xawaa làq na kay fiyatal wursooli melaw àgg li ahsanil axlaaqi jëm ci gën jaarafet ci koye wal maamooli ak lañu yaakaar ndax ne téere bi leeral na wax na dañuy def ba amee jikko ya gën rafet daldi am pajug aajo sammaytu foo tudde naa ko nahja qadaa'il xaaji yoonu faj ajo fi xasdi zarhi cheyxinaa ci góob mbayum sunu sëriñ addal xaaji te moo di addal xaaji wa asalu te maa ngi ñaan allah yàlla rabbi kay sama boroom at taqabbula nangu ga bi fadli yi ci ngëneelam wa an yutimma ak mu matal alxamala jëf ja wa an yàkkoona ak mu nekk kasmihi niki aw turam fa yuslihu te mu yéwénal axwaala man mbiri ka nga xam ne yaqra'uhu dana ko jàng fa yuflihu te muy texe téere bi ne daa koy tudde naxju qadaa il xaaj yoonu faj aajo nga xam ne jàng téere bi xam ko di ko jëfe day tax am pajub aajo tey ak ëllëg ne dama fekk nag la ak xaaj yi wesaroon ma soppi ko way nag tudde ko tur woowu maa ngi ñaan yàlla nag ci mbaax ci mbaaxam ak ngëneelam mu nangul ma te mottalil ma jëf ji maa ngi koy ñaanit ni ma tuddee téere bi téere bi far mel ci biir bitti nga xam ne képp ku ko jàng rek mu daldi yéwénal say mbir nga am pajug aajo daldi texe faw wa an yuxi dani ak mu musal ma mina riyaa ci ngistal wal xuj bi ak aaw aaw mooy naw sa bopp naw sa jëf mbaa sa xam-xam mbaa daal loo xam ci sa bopp leneen loo mën a naw bil muxtaari ci daraje ka ñu tànn dilliwaayu kay boroom drapeau ba wa min siwaahuma ak ci kudul ñoom ñaar minar radaa ili ca caay-caay ya ba añ yajooda ak mu lii ñeel ma bil fadaa ili ngëneel ya wa an yuxiidani ak musal ma moom yàlla taxalaa kawe na abadan faw min charri iblis ci ay iblis allazi iblis ma nga xam ne tamarrada fettéerlu na wa charri ma ak ayu lépp loo xam ne xalaqa bind na ko fil ci suuf wa la nga xam ne xalaqa bind na ko fi sama ci asamaan wa ma ak la nga xam ne baynahuma nekk na seen diggante maa ngi doole ñaan yàlla lépp lu mu taamuwul ci ab jaamam rawante na xeeti caay-caay yi nga xam ne ngistal ca la bokk mooy jëf te yàlla taxut ak jaam bi di gis dara ci boppam lépp luy xeetu matadi gu mel noonu rek maa ngi ñaan yàlla musal ma ca faaw ba noppi nag takkaayale ma mboolem gëneel yi nga xam ne moom la taamu ab jaamam melawoo ko takkaayoo ko maa ngi koy ñaan mu musal ma ci ayu iblis mi nga xamee ne dafa féeteerlu ne du topp te boole ca ne ñëpp daañu mel ni man aw fi ma aw nu bokk bu ëllëgee fu nu jëm maa ngi ñaan yàlla musal ma ci iblis moomu musal ma ci ayu lépp lu amu ay ndax yàlla moom moo sàkk lépp kon nag lu mu sàkk dem amu ay moo xam ci suuf la nekk moo xam ci asamaan la nekk moo xam ci diggante bi la lu ci man doon rek maa ngi koy ñaan mu musal ma ca waa an yajooda ak mu tabe lii ñeel ma bit tibaaxi xayril waraa ci topp ngën ji mbindeef al mushafaaxi kaji kuñ nangu am tinoom ka nga xam ne bu ëllëgee bu tinoo yàlla tin ñamu doon tinu al muttaaxi kaji kuñ topp baada salaatihi ci gannaaw dolli teralam alayhi ci moom bi salaami ànd ak dolli wóolu wa alihi ak ñoñam wa saxbi ak ay saxaabaam bilan fisaamin ci lu dul dog maanaam ci lu amul yemukaay nee nag gannaaw ba ma ñaanee yàlla mu dolli teraanga jàmm yonante beeg ay mbokkam ak saxaabaam dama koy dollee ñaan mu may ma ma sax ci topp sunnaam bañ koo wàcc ci genn wet matale topp ga na mu gën a rafete xonaa fii nag intahat la mate tarjamatul kitaabi tarjumaani téere bi fal aana léegi an sarifu maa ngi wëlbatiku lil aadaa bi jëm ca teggin ya mu ne nag tarjumaani téere bi kat foofu la yam dama bëgg a jëm nag ci li ma tax a jóg te mooy jàngale leeral mbirum teggin ba ku ko bëgg a xam man koo xam man koo topp aqulu danaa wax kay anzima ngir ma woy maa la nga xam ne xadd natara wesaroon na ko a cheyxu sëriñ ba ahmadu te mooy ahmad alladi ma nga xam ne tabaxara jéeju woon na ci xam-xam ne yaa macharab tullaabi yéen mboolem way sàkku ñi ismaaw dégg leen mbind ya tukkee ci man nasihatan ab laabiire tàdd faxu bopp dana jiñ an kum wëli si yéen chaqa an texee di maanaam ñàkk texe nasihatan ab laa biire lakum ñeel leen li wajhillaahi ngir jëmi yàlla tambiha kulli gaafilin ngir yee képp kuy aji sàggan wasaahin ak jëpp aji jamooj waaye nag mën nga ne jépp aji juum rek ndax jamooj mooy juum mu nekkoon kon nag maa ngi way la sëriñ bu baax boobee wesaroon tàmbalee ko ci wax leen ne leen yéen mboolem ñi wut yàlla ka bëgg lu baax téere bii ma leen laa biiree ko dégg bu baax a baax ndax su ngeen ko jàppee texe faw tàggoog texee di dama leen laa biiree rek te yàlla tax bëgg ku amoon càggante ñàkk bàyyi xel ci la ko war mu yeewu ba ne jara tey góorgóorlu ci teggiin di góorgóorlu ci la koy taxa jariñoo tariqatul adabi yoonu teggiin rahmatu saxiiri moo di yërëm ndaw kal abi niki bàyyi wal ummi ak ndey wa tawqiirul kabiiri ak fonk mag wa mislika ak def sa moroom kanaf si ka niki sa bopp sawaan ci ak yemoo li wajhi xaaliqin ngir jëmmi aji bind istawa joj yemoo na xalal xarshi ci kaw aras mu ne teggin day ci gàttal mën nga ne mi ngi ci yett yii mooy ku féete ak ndaw nga féete ko mag nga yërëm ko ni ko ndeyam ak baayam yërëmee koo xam ne moo la teg mag nga fonk ko fonk ko wekk ko koo xam ne it sa moroom rekk nga def ko ne sa bopp bëggal ko li nga bëggal sa bopp di ko bañal li ngay bañal sa bopp te lu ci nekk nag yàlla doo doongu tax nga xam ne gone gi boo ko dee yërëm yàllaay tax mag mi boo ko dee fonk na yàlla rekk tax sa moroom boo koy def ne sa bopp na yàlla rekk tax loolu daal mooy teggin ci gàttal mu daal koy saraane yaani dana jublu an tariqatal adabi naka yoonu teggin an tarxama moo di nga yërëm assaxira ndaw wa takuuna te ngay nekk lëxoo ko kal abi ni ki bàyyi ashafiixi buy aji ñëwante wal ummi ak ndey arrahimati ji aj yërëme wattu waqila te ngay fonk alkabira mag wa in kaana ak doonte nekkoon na xabdan di ab jaam xabashiyan bu ko jóg xabash xabasha mooy éthiopie wa an tajxala ak nga def mislaka samkem muy sa moroom maanaam daal koo xam ne yéen maase kanaf si ka sa bopp sawaan ci ak yemoo li wajhi llaahi ngir jëmmi yàlla alkarim ji aji tedd dana lim mu bëgg a wax mooy yoonu teggin ci gàttal moo di koo xam ne yaa ko mag mu féetale ndaw nga yërëm ko ni ko ndeyam ak baayam yërëmee koo xam ne moo la féete mag nga fonk ko ak doon ci sax ci zahir si daa mel ne ku xeebu li mu ne doonte day ab jaam bu bokk ci waa Éthiopie loolu waxin rek la li ngay waxee ci wolof naa doonte day pël te fekk na doon pël taxut a yamaay ku la féete mag daal ci zahir moom lu mu yemaay yamaay na ko fonk rek te yàlla tax ndax jaam kaw la xam waaye biir yàllaa ko xam ak mujj itam yàllaa ko xam te ak mujj rek am solo koo xam ne itam yéen a maasi mbaa seeni at sorewut nga def ko ne sa bopp di ko bëggal li ngay bëggal sa bopp di ko bajal li ngay bañal sa bopp te loolu lépp nag yàlla kese rek tax waalam xamal bi àndal adaba ci naka teggiin ziinatul aalimi mooy taarub aji xam wal mutaallimi ak aji xamlu wa xilyatul xaaqili te mooy takkaayal aji xellu wal mutaxallimi ak aji lewet lewetlu wa huwa moom rasul axlaaqi mooy bopp jikko ya wa man xalaa ku wéet minhu ci moom faqad taxattala kon yuq na yuq ci wolof mooy ñàkk takkaay ku daan sol ci baatam takkaay bu demee ba defatu ko ca dañuy wax baat ba yuq na wata battala te mu neen wasaara te mu mujj baxibam di ko ñu bañ ilal xalqi jëm ci mbindeef yi wal xaaliqi ak aji bind ja kullama ra'aahu saa yu ko gisee ahadun kenn maqatahu ko sànje mooy ko mer ma ko wa abbu saa yu toogaaleeg ahadan kenn mal lahu mu yoqat ko wa sa imahu te mu yoqat ko yoqat mooy mu sàppi ko lool du ko safati dara dara du bëggati ci moom dara dara mu ne nag teggin moom mooy taaru ñépp ki xam ak ki jàng bëgg xam ñoom ñépp teggiin mooy seen taar ki yeewu amee jikkoy yaaram ak ka bëgg a yeewu amee jikkoy yaaram ñoom ñépp nañ fexe ba amee teggin rekk ndax teggin moom mooy waajtaayu ñëpp mooy taarub ñëpp mooy takkaayal ñëpp ñëpp te it mboolem jikko yi moom teggin moo ci féete ca kaw ni bopp féetee ca kaw ci mboolem cër yi rek noonu la teggin mel ci jikko yi ku ñàkki teggin moom lu mu waaj waaj mel na ne waajul te it ku ñàkki teggiin yàlla da koy bañ mbindee fi yàlla yi maase ci bañ ko ku ko gis rek daldi koy mere lool bañ ko lool ku mbokkal toogit fi saase saas rek nga daldi doyal ci moom sëkk sëkk bëgga daldi tàggoog moom wa minal adabi bokk na ci teggiin an nasihatu laa biire li kulli ahadin ñeel kenn ku ne mimmaa ci la nga xam ne taraa da nga gis fii ci moom rush dafa njubam ga wa an laa taraa ak nga bañ a gis li naf si ka ñeel sa bopp xaqan àq xalaa ahadin muy war kenn wa an naka ak naka yow lasta déet yow mustaxiqan ngay aji yeyoo li say in ñeel dara minat taazimi ci màggal kama ashaara naka mu junje ilayhi ci loolu bi xawlihi ci waxam ji ne farxam yërëmal saxiiran ndaw maanaam gone laa takkun bul nekk mu daxiran di aji denc an walis ko layaadan dara min nasihatin ci ab laabiire taraa boobu da nga gis fiihaa ca moom rusdan njub lëxoo ñeel ko wa waqirt na nga fonk alkabira mag walaw ra ay taxoo ak doonte gisoon nga ko daifan muy aji doye di wa xaqiran tey aji xeebu wa min ta'addubika bokk na ci sag teggiinu an la tanzura nga bañ a seet mbaa nga bañ a xool aqan jenn àq li nafsika ñeel sa bopp xalaa saxsin war jenn jëmm tara tuj danga ko gis wa an tara ak nga gis ne an naka yow lasta dir yow mustaxiqan ngay aji yeyoo chey an dara minat ta'zimi ci màggal ni man tukkee ci ka nga xam ne xadd yamiqu dana sopp mu ne bokk na ci teggiin koo gis rekk laabire ko ngir yàlla loo defe ne boo ko ko waxee mu def ko dana jariñu mbaa loo xam ne boo ko waxee mu moytu ko su ko moytoo mucc na ko laabire te yàlla rek tax xam seen sikk soo xam ne mën naa yàqal nit man ko ko wax te waxoo ko ko loolu dañ koy tuddi alxichu maanaam ñàkk a laabiire kon fexeel ba koo gis taman koo laabiire rek nga laabiire ko loolu teggin la ñépp nga war a nag waaye rawante na gone ba tax mu ne farxam saxiiran wéy gone moom danga nga ko war a laabiré ba lépp loo ko mën a xamal ci lu baax mu def ko mbaa nga moytuloo ko ko ci lu amul njëriñ baa lu koy gaañ mu moytu ko loolu moom war nga caa taxaw bu baax baax moo tax mu feddali ko foofu dellu nag yeesalaat ne képp koo xam ne moo la féeteeg mag na ko fonk ngir yàlla donte sax bokk dee xool ci na mel dafa nuru ku doyadi ku yamaay ku matadi it ndegam moo la mag rek fonk ko te yàlla rek tax bokk na ci teggi nit nga ñàkk a sa bopp fenn bañ a jàpp ne kenn war laa teg fenn jàpp ne kenn waru laa màggal ndax lu jar a màggal nekkul ci yow loolu teggin la koo gis fonk ko màggal ko te jàpp ne yow kenn warulaa fonk kenn warulaa màggal kenn warulaa jox benn cër loolu teggin yu mag mag la loolu nag nee na laata muy andi yi saraa bi da ko jiitu wa tax mu ne kama ashaara ilayhi bi xawlihi daa teel wax saraa bi door a yi ba li fi nekk ixtabir na ngay xalam al aadaaba teggiin ya min nafsika ci sa bopp wala tutaaliban te bul sàkkoo bi si ci moom al asxaaba àndaale ya wala moroom ya maanaam say moroom wala tutaaliban bihi nag xam ne bihaa mu gën a yelloonteeg al aadaaba di ko jiitu wakku nekkal maxan naa si ànd ak nit ñi jamihan mboole seen dëxëraka sa diiru jamono kama tuhibbu ni ngay bëgge ay yekkoonoo ñu nekkee ko maxaka ànd ak yow ci gàttal daal da fexe ba koo gis rekk fonk ko màggal ko teg ko fu kawe kawe te yàlla rek tax te séentu ci moom nag mu teg la fenn mbaa mu fonke la nenn lépp lu ne itam teggin la bul ne jamono ji day yàqu soo dee jéem a melowoo nii doo mën a wéy fexe ba luñ ne rek nga fexe ko melowoo te bañ a seet nag ba xam jamono melowoo nañ ko wala melowoo wuñu ko fexeel daal ba yow lu ñu ne teggin la melowu baax la ku baax a koy melowoo rek nga fexe ba melowoo ko jikkowoo ko te yàlla tax mu ne it da ngay fexe bay ànd ak nit ñi ni nga bëgg ku ko ànd ak yow li nga xam ne moo la neex ngay bëgg ku la koy waxal di la ko defal fexeel ba di ko waxal nit ñi di ko defal nit ñi lépp loo xam ne bëggoo ku la ko wax bëggoo ku la ko def dee ko moytoo wax kenn mbaa def ko kenn loolu nee nañu bu ci ñëpp marché woon àdduna jag bu fekkoon ne kër guy jag la bu fekkoon dal kenn ku ne la bëgg ñu ko koy waxal ak defal moom lay waxal ñépp moom lay defal ñépp lépp daldi aw ci aw yoon lépp di jàmm ak xéewal wax ji ñu wax ne bu fekkoon ne ñëpp dañoo marché ci ku ci ne lu mu bëggul koo ko waxal du ko waxal kenn lu bëggul koo ko def du ko def kenn ñu ne woon bu ci maase woon àdduna fees ak yiw loolu mënees na cee saraa ay téere yu baree bari mënees na cee waxtaan waxtaan wu yaatoo yaatu ndax boo seetloo boo seetloo li ñuy wax njaaloo góor yu jigéen jote jote bu aay kenn bëggul ko def yaayam kenn bëggul ko def soxnaam kenn bëggul ko def doom bu jigéenam kenn bëggul ko def mbokk mu jigéenam bu fekkoon ne nag kenn ku ne ni mu bañee ku ko def ak yaayam mbaa maamam mbaa kenn ci ña aju ci moom bu fekkoon ne nam ko bañale ñooñu day xam ne keneen it noonu la ko bañee ci ñi ko yàlla dénk ba tax mu soree ko noonu kon kenn du ko def boo seetloo itam ku ne ni mu bëggee ku bañ yàq ab deram ak buñ ñu yàqee ab deram ni mu koy naqaree mu taxaw te temm nag ci lu yàgg-yàgg du yàq derub kenn bëggul ko def yaayam kenn bëggul ko def soxnaam kenn bëggul ko def doom bu jigéenam kenn bëggul ko def mbokk mu jigéenam bu fekkoon ne nag kenn ku ne ni mu bañee ku ko def ak yaayam mbaa maamam mbaa kenn ci ña aju ci moom bu fekkoon ne nam ko bañale ñooñu day xam ne keneen it noonu la ko bañee ci ne ko yàlla dénk ba tax mu soree ko noonu kon kenn du ko def boo seetloo itam ku ne ni mu bëggee ku bañ yàq ab deram ak bu ñu yàqee ab deram ni mu koy naqaree mu taxaw te mën nag ci lu yàgg-yàgg du yàq deru kenn alalit ni mu soree ci xool nga xam ne amul kenn ku bëgg ku sàcc alalam mbaa ku ko yàq mbaa ku ca def dara lu aay mu daal xam ne nag noonu mu ko bañe noonu la ko ñëpp bañe loolu daal dafa yaatu yaatu goo xam ne moom noonu ñu ko waxee rek neexuta wax lépp lépp lépp su fekkoon ne daal nit moom lépp lu mu bëgg ñu ko koy waxal ak a defal loola lay waxal ñëpp di ko defal ñëpp lépp loo xam ne itam bëggul koo ko wax ba bëggul ko ko def mu di ko moytoo wax kenn di ko moytoo def kenn lépp daldi aw ci aw yoon lépp di jàmm ak xéewal yaa an yi dana jublu anna min xusnil adabi naka bokk na ci rafetu teggiin an tabira nga xalam maa la nga xam ni huwa moom al adabu moo di teggiin min nafsika ci sa bopp wala tutaaliba te doo sàkku bi ci moom xayraka kudul yow wa an takuuna ak ngay nekk maxa jamihi naasi ànd ak mboolem nit ñi kama tuxibu li ngay bëgge an yakkoonoo ñu nekke ko maxaka ànd ak yow yaari bayit yi mujj wax moom la saraa te dama bëgg a wax ne daal lépp lu ñu ne teggin la del jéem yow jikkowoo ko melowoo ko te buli nag faawukat ñi ma bokkal di dund it dañ ko war a jikkowoo dañ ko war a melowoo bu dee man rek su ma ko melowoo du sotti bul wax loolu jéemal rek te it nit ñi ngay àndeek ñoom ni nga bëggee ku ko àndeek yow dee leen waxal ak defal la ngay bëgg ñu la koy waxal ak defal waraaxi na nga sàmmoonteeg xàq dil jalaali aqi borom màgg ga alqaadiri kay aji àttan fiihim ci ñoom nit ñi li wacci yi ngir jëmmam moom yàlla ka qawli shaahiri ni ki waxi waykat ba yaani dana jublu anna min xusnil adabi naka bokk na ci rafetuk teggiin an turaaxiya ngay sàmmoonte fil xalqi ci mbindeef yi xaqa xaaliqihim xaqi aji bind seen muy yàlla jàll màgg na waxalaate mu kawe bi an ci nga nekk maahum ànd ñoom ni ki waxe woon ashaahiru waykat ba min baxril basiiti ci baxrul basiit baxru mooy ab daaj daaj way dañoo bari am ci bu tudd basiit waykat bii nag dafa daaje woon ci basiit ilham yërëmal bu xay yi yow sama mbokk jamihal xalqi mboolem mbindeef yi kullihimoo képp ci ñoom wanzur te nga xool ilihim jëm ci ñoom bi ay ni lutfi ci bëtub ñewante wa shafaxati ak yërmaande a shafax daañ ko wax ñewante ni nga waxe al lutf waaye dend giñ dend moo tax ñu wutalee prix mi ndax neexal rekk waaye sorewuñu waqir na ngay fonk kabira xumoo seen mag war xam te nga yërëm saxiira xumoo seen ndaw maanaam ka doon gone ci ñoom waraaxi te ngay sàmmoonte fii kulli xalqin ci bépp mbindeef xàqaman aqi buur bi nga xam ne xalaqahoo bind na ko wa fil xadiisi nekk na ci hadiis ba laa tasaalu du dañ ummati sama xeet wi bi xayrin ci aw yiw maadaama li fekk sax na saxiruhaa ndawam moom xeet wi yu waqiru di fonk kabirahaa magam wa kabiruhaa magam itam yan xamu di yëram saxirahaa ndawam ku nekkal da ti indi boroomu roy bi xuddal a'immati ci jubug kilifa yu baax ya radiya yal na doole gërëm allahu yàlla taxalaa kawe na an hu walis ñoom fa tahtadiya kon da nga mu ne mbindee fi yàlla yi nga xam ne yàllaa leen boole ngeen di dund ci kaw suuf da ngay seet yàlla mi la booleek ñoom te bañ a seet ñoom nañu mel ndax mën naa am boo xoolee nañu mel rek xarab leen sikk leen du ngay mën a ànd waaye nag bu la wóoree ca dëgg-dëgg yàlla moo sàkk mbindeef yi te it mooy soppandiku ci ñoom ca dëgg-dëgg amu ci kenn kuy soppandiku ci boppam boo seetee loolu day tax rek nga mën a ànd ak ñoom àndin wu rafet te loolu mooy nam ko xewoon ci gannaaw ak mu ne it ni ko waykat bi daaj ci baxarul basit ne sabas mbokk dénk naa la nga yërëm mboolem mbindeef yépp yépp di xoole xoole bëtub ñewanteeg yërmande koo ci xam ne moo la mag nga fonk ko koo ci xam ne yaa ko mag nga yërëm ko mbindeef mu ne nga seet ca àq yàlla mi nga xam ne moo ko bind te bañ a seet moom mbindeef ma na mu mel mu ne it addis ba nee na woon li fekk gone ngi fonk mag mag di yërul gone rek sama xeet wi ci aw yiw ak jàmm rekk lañuy nekk mu ne del jéem roy ci kilifa yu baax ya di jéem a jube nañu jube woon soo ko defee yàlla mën na laa gindi bëgg a jub falaatu jaalis bul toogaaleeg man koo xam ne yàkkoonu dana nekk ak bara di gëna a mage min ka ci yow bila daruratin ci dudul lor kamatara ni nga gisee misla taallumin kem xamlu wa sukkunaa ak dëkk wala nga ne dëkkukaay aw mahashin wala ab dund wala tujaalis te bul toogaale maaxoo ànd ak moom fawqal firaashi ci kaw lal ba fa xaytuma jaalastaxoo foofu xam ne toogaale nga ak moom fa jaalisu na nga toogaaleeg moom bi waqaarin ci ak wegu mooy ci yaru daa sakinatin ngay boroomuk dal daa boobu xaal la mbir mu ngay boroomuk dal maxax ci xaarin ànd ak xeebu maanaam xeeb sa bopp wa bi razanatin ak ci ak dal wala nga ne ci ak wegu wala tajlis bul toog mu la siqan mbir mu ngay aji sës rëkk maanaam lu ñuy wax di aji ñooxu ñuuxu lëxoo ñeel ko aw xinda waccihi walla fa kanamam wala tàmmut da te bul tàllal nax waxoo fa féeteeg moom uxay yi yow sabas mbokk rëj la ko sab tànk in tajlisa ndem na ngeen a toog waxut da te na nga damm an walis ko tarfaka sab gis dafa dellooti ci way yi ne la képp koo xam ne moo la féeteeg mag ñu waxoon nga fonk ko na ko fonk ba fu mu toog nga bàyyee ko ko bañ faa toog ak moom ku mag daal moom fu mu toog rek bu dee laloo bu leneen bàyyee ko ko seet feneen foo toog te toog fi suuf boog bu amul feneen foo toog lu may nag nga xam ne mën laa ñàkk bokk ak moom toog ngànta ko waral mel ne bu ngeen bokkee di jàng mbaa ngeen bokk dëkk mbaa ngeen bokk fu ngeen di lekke mel na tey su jamono jii ngeen demoon ci fa ñuy jaayee lekk mbaa sax ngeen di tukki nii ci dugg ci oto yi mbaa saxaar mbaa leneen yooyu yëpp moom da di toog koo xam ne moo la féeteeg mag ndax loola ngànta ko waral waaye bu dul loolu daal moom fu mu toog rekk bàyyi ko mu toog fa nga seet feneen mbaa nga toog fi suuf su fekkee ne ngànt am na nag bu mën laa ñàkk a moom ba nga toog ak moom it na wane ci saw toogin ne li ma def kat gënalu ma ngànt ko waral te loolu mooy nga yaru xeeb sa bopp te it ci na tooge bul ko ñëwaxu sës ci moom rek bu toog itam fa kanamam toogal ci wetuk ndeyjooram mbaa ci wetuk càmmoñam mbaa ci gannaawam na nga moytu nag tàllal say tànk jëmale ko ngeen bokk toog ngay tàllal say tànk jëmale ko loolu moom ñàkk teggin lool la bu ko di xool sax xoolub jàkk rek bañ a xef ndax boo ko dee xool xoolub jàkk rek bañ a xef day mel nekkoon kon koo wégut yaa ni dana jublu ann min xusnil adabi naka bokk na ci rafetuk teggiin an laa tujaalisa nga bañ a toogaaleeg man koo xam ni xoo moom akbaru moo gën a mage min ko ci yow illaa li daruratin dara ngir lor min taallumin ci ab xamlu aw maashin wala ab dund aw sukkunaa wala ab dëkkuwaay wa naxwi dalika ak lu mel ni loolee wa ida jaalastahoo ndeem toogaale nga ak moom fa jaalishu na nga toogaale ak moom bi sakinatin ci ak dal wa waqaarin akuk wegu wa razanatin akuk dal wala tajlis te bul toog xinda waccihi fa kanamam aw mulaasiqan wala ngay aji sës rëkk wala ngay aji ñooxu lëxoo ñeel ko aw tam mudda wala ngay tàllal rëj la ko sab tànk naxwaxoo fa féeteeg moom wa xubba te na nga damm tarfaka sab gis an hu walis ko wala tukatir te bul di baril al iltifaata geestu min xayri xaajatin ci lu dul aajo fa innahu naka loolu min alaamatil jahli mu ngi bokk ci màndargam réer waqad qaala wax na allahu yàlla taxalaa kawe na qul waxal lil muminina ñeel way gëm ña yaxuddu ñi damm min absaarihim seeni bët wa ilayhi jëm ci loolu ashaara la junj bi xawlihi ca waxam jane wala takun bul nekk mu kastiral tifaatin di aji baril geestu ilal jihaati jëm ci wàll ya min xayri xaajatin ci lu dul aajo fa innahu naka loolu yabiinu dana bir alaamatal jahli mbir mu muy màndargam réer wa fi kitaabillahi te nekk na ci téereb yàlla bi qul lil muminin qul lil muminin fa kun nekkal moom tasinan di aji topp li amri dil wara ñeel ndigalal boroom mbindeef yi ngir jaa adikk na fil xadiis ba inna rajula inna rajula waxaala waxoon na xidman ca bu yàgg shaahirun ab waykat wa innaka wa innaka falaa takkun bul nekk mu jiilan di aju wëndeel tarfak sab gis ci jenn jamono lee mu ne fil xaddiisi inna rajula am hadis bu tàmbalee inna rajula mu junj ko da ko gis ci saraa bi ne itam shaahirun wa innaka wa in naka jooju moom it da ko gis ci saraa bi mu indi ñaari way ya nga xam ne moom la kooku wax tàmbalee ko ci wa in naka bayt yi waxoon léegi moom la saraawaat ne la li ma bëgg wax mooy bokk na ci rafet rafeti teggiin ku la féet ak mag rekk bu xasee toog nga bàyyi ko mu toog bañ a bokk ak moom di toog lu may ngànta ko waral mel ne ngeen bokk di jàng mbaa ngeen bokk dëkk mbaa ngeen bokk di lekk mbaa daal am na ngànt loo xam ne tax na mën leen a ñàkk bokk toog bu dul loolu rek fu toog bàyyi ko ko toog feneen mbaa nga toog fi suuf su ngànt amee bu mën laa ñàkk bokk ak moom toogit danga nga ànd ak yaru ànd ak dal xeeb sa bopp ba ku la gis xam ne yow mii toog yi nga toog ak moom ngànta ko waral waaye neexu la da nga moytu nag toog fa kanamam mbaa sës ci moom rek ñooxu ko wala ngay taalal say tànk di jëmale ci moom walla nga di ko xool jàkk rek bañ a xef yooyu yépp ñàkk teggin la lim ci teg moom da ko teel a saraa te bay ñëwagut mu ne del moytu dox di geestu te dara taxulay geestu ndax dox di geestu te amut lu la tax di geestu ak ñàkk xam rekk lay tegtale lay teggin mooy booy xool moo xam na ngay geestu moo xam geestu woo booy xool rekk na am lu tax ngay xool jekki-jekki sànni say bët rek ñàkki teggin la yaani dana jublu ni an naka naka yow waajibun aji war la alayka ci yow an tasi la nga topp maa la nga xam ni amaraka digal na la bihi ci moom rabbuka sa boroom min xabdil basari ci damu ab gis maanaam ci téye say bët li anna fil xadiisi ngir naka nekk na ci xadiis anna rasulallaahi naka yonente bi ba sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne inna rajula naka waaja la yanduru dana xool an nadrata xool ba yangalu dana yàqoo bihaa ca moom qalbuhu xolam ba kama yanxalu ni ki yàqoo al adimu der ba maanaam ab der fi dibaaxi ci sibic sibic mooy dénd ab der defar ko ba mu baax def ca nenab mbaa lu mel ne godoron laa yantafixu di jariñooti bii ci moom abadan mukk abadan mukk waqaala waxoon na ashaaxir waykat ba wa innaka naka yow in arsalta ndeem boyal nga wala ndeem yabal nga tarfaka sab raa idan muy aji wëndeelu mbaa muy aji wëri li xal bi sa xol at xabat ka sonal la almanaziru xoolukaay ya maanaam daal yee ñuy xool yow mën ci ab bis ndax ra'ayta gis nga allazi loo xam ne laa kullahoo déet léppam anta yow xaadirun ngay aji àttan alayhi ci moom soo jàngee laa kullahoo da koy jàppe istiraal mu tax ko nasab boo defee nag laa kullahoo déet léppam lay gën yomb muy mubtada wala anta te déet yow saabirun ngay aji muñ an xam baadihi walis lennam jekki-jekki sànni say bët rekk ñàkki teggin la ba tax yàlla ne woon yonante bi waxal ñi wax ne gëm nañu ñuy téye seeni bët dafa wax waqul lil muminin yaxuddu min absaarihim waxaat waxul lil mu'minaat yaxdudna min absaarihin way gëm ñu góor ñi nee leen nañu téye seeni bët way gëm ñu jigéen ñi nee leen nañuy téye seeni bët moo tax nag ba mu agsee ca way ya loolu rekk la ca wax mooy del moytu dox di geestu te amul dara lu tax ngay dox di geestu say bët dee ko téye bu baax ndax suñ boroom kat wax na yonante bi ne ko digalal ñi gëm moo xam góor lañu moo xam jigéen lañu na ñuy téye seeni bët mu ne kon nag toppal ndigal loolu bu baax a baax ndax addis ba nee na nit mën naa xool benn xool rekk xolam doxe ci yàqu yaxeet ni nga xamee ni ab der mën nañ koy dénd di ca def nenn ba godoron yooyu mu far yàqu benn yoon ba tey nit mën naa xool benn xool bu aay rek xolam doxe ca yàqu di ci jariñooti mukk lam ne woon ñëw na ci addis ba inna rajula addis baa ngoog noonu la ñëwee ci saraa bi mu ne it waykat ba nee na woon soo dee sànni say bët rekk fu la neex xool doo ko téye mukk mën naa am day say bët tegu ci loo xam ne danga ci jële ak coona ndax mën ngaa yëkkat say bët di xool rekk yem ci loo xam ne wóor na la ne lii warisu koo xool waaye nag danga ci am bànneex boo xam ne itam doo mën a teggi say bët sa bakkan ak seytaane dal la cay gañe njëriñ rekk di xool te dañu ne bu say bët tegoo ci loo wërta xool nga dal di teggi xool boobee kenn du la ca bindal bàkkaar waaye nag bu say bët tegoo ci loo xam ne waroo koo xool te daloo teggi say bët xanaa wéy di xool ñu dal lay bindal loola bàkkaar dañuy wax ne itam bët mooy jiwu bëgg loo gisul rek xamoo mel mën nga ko bañ a bëgg waaye say bët mën naa tegu ci loo xam ne da ko bëgg mbëggeel goo xam ne doo ca moomat sa bopp te it bu fekkee mën laa jaar fenn ba jot ca mbaa na nga cay jote lu araam lay doon loola mën nga caa jële ñàkk a gu sar tàmbali àdduna wéy àllaaxira moo tax daal kon daal yaar yi moom muy bët ak làmmiñ téye leen bu baax dana taxa mucc bàyyi leen tam ñàkk leen sàmm fu ñu jëm rekk baax na mën naa yóbbe nit ak yàqu goo xam ne ak defaru du ca yombaat wa innaka in arsalta jooju mooy lam junjoon ca wayya naa waqaala xidman shaahirun wa innaka wa innaka ji moo nekk noonu mu yaari bayit yooyu waqaala waxoon na aaxaru kaneen laysa shujaahu déet jàmbaar ja allazi muy ka nga xam ne yax mi dana aar fawaarisahoo ay gawaram yow matti aani ci bisub dëbbante ba dëbbante mooy jamante idaamal xar bu ndem xare ba tashtaay lu gën a tàkk laakin na man waaye ka nga xam ne xob ba damm na tarfan ab gis aw sanaa wala mu lem maanaam téye xadama ndëggu anil maas yi wëlis xeeti mooy yàlla yi fa daaka kookee alfaarisu mooy gawar ba albatalu bay aji jàmbaare keneen nee na woon jàmbaar dëgg day mooy ki nga xamee ne fexe na ba téye ay bëtam bañ caa xool lu yàlla aaye téye ay tànkam bañ caa dox lu yàlla gërëmut mboolem cëram yépp mu fexe ba sàmm leen bañ caa mooy yàlla kooku de mooy jàmbaar waaye bokkut njàmbaar gi nga xam ne moom lañ xam ci aada te mooy gawar bi ànd gàngooram ñu dem ci xeex ba mu xeex xeex ba wër ay àndaaleem mu mucc ñam àndal mucc ndax ak njàmbaareem rekk kooku day jàmbaar la ci aada mooy jàmbaar la ci niñ xamee jàmbaar rekk noonu waaye ci dëgg-dëgg nag jàmbaar daal mooy ku fexe ba sàmm ay cëram bañ caa jege ak mooy yàlla wala tukatir bul baril xaytu kunta foo man di nekk allahwa fo waddax ka ak ma taxarrukin ànd ak yëngatu wallaxwa ak neen mooy caaxaan wal ibtiraaba ak baj baji wat tataawula ak yuqamtiku ilaa tatalluin jëm ci yër xalaa xafiyin ci aju nëbbu musjalan lu man di doon fa innahoo naka loolu badaa feeñ na alaamata tay fi mbir mu muy màndargam tooy wa xifatal xaqli ak wayefum xel tooy googu nag moo wayef xel benn lañ li man ñeel ko nga xam ne taxawada tàmm na ko dafa jàll ci way yi ne foo mën di nekk nga moytu nekk di fo ba mu bari mbaa ngay ree ree ju bari mbaa ngay yëngatu ak a bari caaxaan di baj baji di yuqamtiku bëgg a loo xam ne sax dañ ko doon làq bëgguñu nga gis ko loolu lépp ñàkki teggin la te xel mu gàtt rekk moo koy waral wakkun nekkal saakinal jasadi di aj dal aw yaram la dal ci fa jataay ba walla sim te nga taqoo assunta noppi bi inradin ànd ak dëddu du fat kon def na la jariñ waspirte nga muñ xala sabbi ca ŋàññ wa wala tujib te bul tontu ahadan kenn kooku nekkal kama ni ki waxe woon al adibu aji xam ja wala xadd wala xadd maanaam waxi kooku daa tàmbalee ci wala xadd danga nga ko gis léegi ci saraa bi idi ngir at tasaa bubu ŋàññante maxattakaa bubi ànd ak fenante min aqbahil xisaali bokk na ci gën jaabooni jikko ya kat tabaaru bi ni ki dóorante wa kasratu dax ki barig tumiitu day rey alqalba xol ba faqal li lan na nga néewal ab baxkaree tur bi kon nga gërëmloo arab ba buur ba mu ni daal foo mën di toog na nga def tekk téye say cër téye saw làmmiñ bu la kenn waxee sax lu mu la wërta wax bul jekki di fayu xanteeg moom ni ki mu lay xas nga di ko xas téye sa làmmiñ rek am na lu waa ju am xam-xam waxoon mu tàmbale walla xadd daañu la ko nettali léegi ci biir saraa bi defal noonu rek ndax jekki di xastanteeg kenn mbaa di fenalanteeg kenn mbaa jekki di dóoranteeka def yu mel noonu daal moom dafa bokk ci jikko yi gën ñaaw sori ay teggin lool ba tax na bu la ci kenn mën a yóbbaale mu ne nag ree ju bari moom dee ko moytu loo man ndax ree ju bari day rey xol te xol mooy nit ku xolam dee rek aw na ci yoonu texee di bu ko yàlla dabaatalut ci yërmandeem rek du texe kon boo bëggee am ngërëmul yàlla sa boroom del néewal say ree yaa an yi dana jublu anna minal adabi naka bokk na ci teggiin al mardi yi jadi juñ gërëm an laa tukk sira nga bañ a baril al lahwa po wa daxka ak ree wal lahwa ak neen wala nga ne caaxaan wal ibtiraaba ak baj-baji wat taxarruka ak yëngatu wat tataawula ak yuqamtiku li tab talixa ngir nga yër xalaamaa ca la nga xam ne xafiya nëbbu na fa innahu naka loolu min xalaamati tayshi mi ngi bokk ci màndargam tooy maanaam xel mu gàtt wa xifatin xaqli ak waye fu xel wa ku nekkal saakinan di aji dal maa dumta li fekk sax nga fil majlis ci jataay ba fil majlisi mulaazima sumti tey aji taqoo noppi illaa an tus ala ndare bu def laa laaj xan shay in walis dara fattu jiiba te ngay tontu an hu walis loolee bi xafdi sawtin ànd ak suufek kàddu wala suufeel kàddu aw taxtaaja wala ngay aajowoo ila suaali jëm ci laaj ga aw talabihi wala ak sàkkoom fatatakallama te ngay wax ala qadril xaajati ci kem soxla sa wala tasida te doo dolli xalaamaa ci la nga xam ne toddu tarru def na la loruloo ilayhi jëm ci moom min dalika ci loolee fa inna fi sumti naka nekk na ci noppi sitran sutura waraaxatan akum nooflaay kama qila ni ki waxee fene ustur na ngay suturaal alxay ba sikk sa mastataata loo man bi sumtin ci noppi inna fi sumti naka nekk na ci noppi raaxatan ab noflaay li samooti ñeel noppikat ba dañ koy wax ak noppi waa kon waaye mooy ab noppikat rek wajaxal defal as sumta noppi jawaaban muy tontu in xay yiita ndeem nga ci tontu ruba xawlin baraan wax jawaabuhoo tontam fi sukkooti nekk na ci noppi wa fil xikmati nekk na ci xikma mooy nekk na ci wax ba am njariñ law kaana doonte nekkoon na alkalaamu wax fiddatan di xaalis la ko nekk as sukootu noppi dahaban di wurus li waxoon ci way yi moom la saraa ne la dama laa bëgg a wax ne la bokk na ci teggin yañ gërëm yañu sant te nga war koo sàmm ngay moytu po mu bari mbaa reeju bari mbaa caaxaan yu bari mbaa di baj bajee ko yëngatu fu ne nga yuqamti ku jëm fa xëy na sax bëgg xool loo xam ne dañ ko doon làq bëgguñu ko ko gis yooyu yëpp kenn bëggul ko def yaayam kenn bëggul ko def soxnaam kenn bëggul ko def doom bu jigéenam kenn bëggul ko def mbokk mu jigéenam bu fekkoon ne nag kenn ku ne nim bañe ku ko def ak yaayam mbaa maamam mbaa kenn ci ña aju ci moom bu fekkoon ne nam ko bañale ñooñu day xam ne keneen it noonu la ko bañe ci ñi ko yàlla dénk ba tax mu soree ko noonu kon kenn du ko def boo seetloo itam ku ne ni bëggee ku bañ yàq ab deram bu ñu yàqee ab deram ni mu koy naqaree mu taxaw temm nag ci lu yàgg-yàgg du yàq deruf kenn alalit ni mu soree ci xool nga xam ne amul kenn ku bëgg ku sàcc alalam mbaa ku ko yàq mbaa ku ca def dara lu aay mu daal di xam ne nag noonee mu ko bañe noonu la ko ñëpp bañe loolu daal dafa yaatu yaatu goo xam ne moom noonu ñu ko waxee rek neexuta wax lépp lépp lépp su fekkoon ne daal nit moom lépp lu mu bëgg ñu ko koy waxal ak defal loola lay waxal ñëpp di ko defal ñëpp lépp loo xam ne itam bëggul koo ko wax baa bëggul ko ko def mu di ko moytoo wax kenn ñu ko moytoo def kenn lépp daldi aw ci aw yoon lépp di jàmm ak xéewal yaani dana jublu anna min xusnil adabi naka bokk na ci rafetuk teggiin an taatabira nga xalam maa la nga xam ni huwa moom al adabu moo di teggiin min nafsika ci sa bopp wala ba te doo sàkku bi ci moom xayraka kudul yow wa an takuuna ak ngay nekk maxa jamihi naasi ànd ak mboolem nit ñi kama tuhibbu ni ngay bëgge añ yekkoonoo ñu nekkee ko maxaka ànd ak yow yaari bayit yi mujj wax moom la saraa te dama bëgg a wax ne daal lépp lu ñu ne teggiin la jël jëm yow jikkowoo ko melowoo ko te bul ni nag faawukat ñi ma bokkal di dund it dañ ko war a jikkowoo dañ ko war a melowoo bu dee man rek su ma ko melowoo du sotti bul wax loolu jéemal rekk te it mboolem nit ñi ngay àndeek ñoom ni nga bëggee ku ko àndeek yow dee leen waxal ak defal la ngay bëgg ñu la koy waxal ak defal waraaxi na nga sàmmoonteeg xàq dil jalaali aqi borom màgg ga alqaadiri kay aji àttan fiihim ci ñoom nit ñi li wacci yi ngir jëmmam moom yàlla ka qawli shaahiri ni ki waxi waykat ba yaani dana jublu anna min xusnil adabi naka bokk na ci rafetu teggiin an turaax ya ngay sàmmoonte fil xalqi ci mbindeef yi xaqa xaaliqihim xaqi aji bind seen muy yàlla jàll màgg na waxalaate mu kawe bi an takuuna ci nga nekk maahum ànd ak ñoom kama qaala ni ki waxe woon ashaahiru wekkat ba min baxril basiiti ci baxrul basiit baxru mooy ab daaj daaj way dañoo bari am ca bu tudd basiit waykat bii nag dafa daaje woon ci basiit ilham yërëmal uxay yi yow sama mbokk jamiixal xalqi mboolem mbindeef yi kullihim wa képp ci ñoom wanzur te nga xool ilayhim jëm ci ñoom bi ay ni fi ci bëtub ñewante wa shafaqati ak yërmande ak shafaqat daañu ko wax ñewante ni nga waxe fu waaye dend giñ dend moo tax ñu wóotalee primi ndax neexal rek waaye sorewuñu waqir na ngay fonk kabirahumoo seen mag warxam te nga yërëm saxirahumoo seen ndaw maanaam ka doon gone ci ñoom waraaxi te ngay sàmmoonte fii kulli xalqin ci bépp mbindeef xàqaman aki buur bi nga xam ne xalaqahoo bind na ko wa fil xadiisi nekk na ci hadiis ba laa tasaalu du dañ ummati sama xeet wi bi xayrin ci aw yiw maadaama li fekk sax na saxiiruhaa ndawam moom xeet wi yu waqiru di fonk kabirahaa magam wa kabiruhaa magam itam yarxamu di yëram saxiirahaa ndawam ku nekkal da tisaayin di boroomu roy bi xuddal a'immati ci jubug kilifa yu baax ya radiya yal na doole gërëm allahu yàlla taxalaa kawe na an hum walis ñoom fa tahtadiya kon da jub mu ne mbindee fi yàlla yi nga xam ne yàllaa leen boole ngeen di dund ci kaw suuf da seet yàlla mi la booleeg ñoom te bañ a seet ñoom nañu mel ndax mën naa am boo xoolee nañu mel rek xarab leen sikk leen du ngay mën a ànd waaye nag bu la wóoree ne ca dëgg-dëgg yàlla moo sàkk mbindeef yi te it mooy soppandiku ci ñoom ca dëgg-dëgg amu ci kenn kuy soppandiku ci boppam boo seetee loolu day tax rek nga mën a ànd ak ñoom àndin wu rafet te loolu mooy nam ko xewoon ci gannaaw ak mu ne it ni ko waykat bii daaje ci baxarul basiit ne sabas mbokk dénk naa la nga yërëm mboole mbindeef yépp yépp di leen xoole bëtub ñewanteeg yërmande koo ci xam ne moo la mag nga fonk ko koo ci xam ne yaa ko mag nga yërëm ko mbindeef mu ne nga seet ca àq yàlla mi nga xam ne moo ko bind te seet moom mbindeef ma na mu mel mu ne it addis ba nee na woon li feek gone ngi fonk mag mag di yërëm gone rekk sama xeet yi ci aw yiw ak jàmm rekk lañuy nekk mu ne del jéem roy ci kilifa yu baax ya di jéem a jube nañu jube woon soo ko defee yàlla mën na laa gindi ba nga jub falaatu jaalis bul toogaaleeg man koo xam ne yàkkoonu dana nekk ak bara di gën a mage min ko ci yow bila daruratin ci dul lor kamaataraa ni nga gisee misla taallumin kem xamlu war sukk naa ak dëkk wala nga ne dëkkukaay aw maxaachin wala ab dund wala tujaalis te bul toogaale maaxoo ànd ak moom fawqal firaashi ci kaw lal ba fa xaytuma jaalastaxoo foofi xam ne toogaale nga ak moom fa jaalisu na nga toogaale ak moom bi ci ak wegu mooy ci yaru daa sakinatin ngay boroomuk dal daa boobu xaal la mbir mu ngay boroomuk dal maxa ci qaarin ànd ak xeebu maanaam xeeb sa bopp wa bi razanatin ak ci dal wala nga ne ci ak wegu wala toog mu laa siqan mbir mu ngay li ñuy wax di aji ñooxu ñooxu lëxoo ko aw xinda waccihi wala fa kanamam wala tambut da te bul tàllal nax waxoo fa féeteeg moom u xay yi yow sabas mbokk rëj la ko sab tànk in tajlisa ndem la toog waxut da te na nga damm an walis ko tarfaka sab gis dafa dellooti ci way yi ne la képp koo xam ne moo la féeteeg mag ñu waxoon nga fonk ko na ko fonk ba fu mu toog nga bàyyee ko ko bañ faa toog ak moom ku la mag daal moom fu mu toog rek bu dee laloo bu dee leneen bàyyee ko ko seet feneen foo toog te toog fi suuf boog boo amul feneen foo toog lu may nag nga xam ne mën laa ñàkk bokk ak moom toog ngànta ko waral mel ne bu ngeen bokkee di jàng mbaa ngeen bokk dëkk mbaa ngeen bokk fu ngeen di lekke mel ne tey suñ jamono jii ngeen demoon ci fa ñuy jaayee lekk mbaa sax ngeen di tukki nii ci dugg ci oto yi mbaa saxaar mbaa leneen yooyu yëpp moom danga di toog ak koo xam ne moo la féeteeg mag ndax loola ngànta ko waral waaye bu dul loolu daal moom fu mu toog rek bàyyi ko mu toog fa nga seet feneen mbaa nga toog fi suuf su fekkee ne ngànt am na nag bu mën laa ñàkk a toog ak moom ba nga toog ak moom it na wane ci saw toogin ne li ma def kat gënalu ma ngànt ko waral te loola mooy nga yaru xeeb sa bopp te it ci na ngeen tooge bul ko ñooxu sës ci moom rek bul toog itam fa kanamam toogal ci wetuk ndeyjooram mbaa ci wetuk càmmooñam mbaa ci gannaawam danga nga moytu nag tàllal say tànk jëmale ko ngeen bokk toog ngay tàllal say tànk jëmale ko loolu moom ñàkk teggin lool la bu ko di xool sax xoolub jàkk rekk bañ a xef ndax boo ko dee xool xoolub jàkk rek bañ a xef day mel ne kon da nga yaani dana jublu anna min xusnil adabi naka bokk na ci rafetu teggiin an laa tujaalisa nga bañ a toogaaleeg man koo xam ni xoo moom ak baru moo gën a mage min ko ci yow illaa li daruratin ndara ngir lor min taallumin ci ak xamlu aw maashin wala ab dund aw sukkanaa wala ab dëkkuwaay wa naxwi dalika ak lu mel ni loolee wa ida jaalastahoo ndéem toogaale nga ak moom fa jaalishu na nga toogaaleeg moom bi sakiinatin ci ak dal wa waqaarin akuk wegu wa razaanatin akuk dal wala tajlis te bul toog xinda waccihi fa kanamam aw mulaasiqan wala ngay aji sës rëkk wala ngay aji ñooxu laxoo ñeel ko aw ta mudda wala ngay tàllal rij la ka sab tànk naxwa xoo fa féeteeg moom waxubda te na nga damm tarfaka sab gis an hu walis ko wala tukathir te bul di baril al iltifaata geestu min xayri xaajatin ci lu dul aajo fa innahu naka loolu min alaamatil jahli mu ngi bokk ci màndargam réer waqad qaala wax na allahu yàlla taxalaa kawe na qul waxal lil muminina ñeel way gëm ña yaxuddu ñu damm min absaarihim seeni bët wa ilayhi jëm ci loolu ashaara la junj bi xawlihi ca waxam jane wala takkun bul nekk mu kastiral tifaatin di aji baril geestu ilal jihaati jëm ci wàll ya min xayri xaajatin ci ludul aajo fa innahu naka loolu yabiinu dana bir alaamatal jahli mbir mu muy màndargam réer wa fi kitaabillahi te nekk na ci téereb yàlla bi xul lil muminin xul lil nekkal moom tasilan di aji topp li amri dil wara ñeel ndigalal borom mbindeef yi idi ngir jaa adikk na fil xadis ci xadis ba inna rajula inna rajula waxaala waxoon na xidman ca bu yàgg shaahirun ab waykat wa innaka wa innaka falaa takkun bul nekk mu jiilan di aji wëndeel tarfak sab gis dëxëran ci jenn jamono lee mu ne fil xadis yi inna rajula daam hadis bu tàmbalee inna rajula mu junj ko ko gis ci saraa bi lee mu ne itam shaahirun wa innaka wa jooju moom it da ko gis ci saraa bi mu indi ñaari way yi nga xam ne moom la ko wax tàmbalee ko ci wa innaka bayt yi waxoon léegi moom la saraawaat ne la li ma bëgg a wax mooy bokk na ci rafeti teggiin ku la féet ak mag rek bu xasee toog nga bàyyi ko mu toog bañ bokk ak moom di toog lu may ngànta ko waral mel ne ngeen bokk di jàng mbaa ngeen bokk dëkk mbaa ngeen bokk di lekk mbaa daal am na ngànt loo xam ne tax na mën leen a ñàkk bokk toog bu dul loolu rek fu mu toog bàyyi ko ko toog feneen mbaa nga toog fi suuf su ngant amee bu mën laa ñàkk bokk ak moom toogit da ànd ak yaru ànd ak dal xeeb sa bopp ku la gis xam ne yow mii toog yi nga toog ak moom ngànt ko waral waaye neexu la da nga moytu nag toog fa kanamam mbaa sës ci moom rek ñooxu ko wala ngay tàllal say tànk di jëmale ci moom walla nga di ko xool jàkk rek bañ a xef yooyu yépp ñàkk teggin la lim ci teg moom da ko teel saraa te bayit ya ñëwagut mu ne del moytu dox di geestu te dara taxulay geestu ndax dox di geestu te amut lu la tax di geestu ak ñàkk xam rekk lay tegtale lay teggin mooy booy xool moo xam na ngay gestu moo xam gestu woo booy xool rekk na am lu tax ngay xool jekki-jekki sànni say bët rekk ñàkki teggin la yaani dana jublu ni an naka naka yow waajibun aji war la alayka ci yow an tam tasi la nga topp maa la nga xam ne amaraka digal na la bihi ci moom rabbuka sa boroom min xabdil basari ci damm ab gis maanaam ci tey say bët li anna fil xadiisi ngir naka nekk na ci xadiis anna rasulallaahi naka yonente bi yàlla ba sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne inna rajula naka waaja la yanduru dana xool an nadrata xool ba yan xalu dana yàqoo bihaa ca moom xal buxoo xolam ba kama yan xalu ni ki yàqoo al adiimu der ba maanaam ab der fit dibaaxi ci sibic sibic mooy dénd ab der defar ko ba mu baax def ca nen ab mbaa lu mel ne godoron laa yan tafexu di jariñooti bii ci moom abadan mukk abadan mukk waxoon na alshaaxiru waykat ba wa innaka naka yow in arsalta ndeem boyal nga wala ndeem yabal nga tarafaka sab gis raa idan muy aji wëndeelu mbaa muy wëri li xal bi ka sa xol at habatka kon sonal la almanaziru xoolukaay ya maanaam daal yee ñuy xool yow mën ci ab bis ndax ra'ayta gis nga allazi loo xam ne laa kullahoo déet léppam anta yow xaadirun ngay aji àttan alayhi ci moom soo jàngee laa kullahoo da koy jàppe istiraal mu tax ko nasab boo defee nag laa kullahoo déet léppam lay gën a yomb muy mubtada wala anta te déet yow saabirun ngay aji muñ an xam baadihi walis lennam jekki-jekki sànni say bët rek ñàkki teggin la ba tax yàlla ne woon yonante bi waxal ñi wax ne gëm nañu ñuy téye seeni bët dafa wax waqul lil muminin yaxuddu min absaarihim waxaat waxul lil mu'minaat yaxuddudna min absaarihin way gëm ñu góor ñi nee leen seeni bët way gëm ñu jigéen ñi nee leen nañuy téye seeni bët moo tax nag ba mu agsee ca way ya loolu rek la ca wax mooy del moytu dox di geestu te amul dara lu tax ngay dox di gestu say bët dee ko téye bu baax ndax suñu boroom kat wax na yonente bi ne ko digalal ñi gëm moo xam góor lañu moo xam jigéen lañu na ñuy seeni bët mu ne kon nag toppal ndigal loolu bu baax a baax ndax addis ba nee na nit mën naa xool benn xool rekk xolam doxe ci yàqu yaxeet ni nga xamee ni ab der mën nañ koy dénd di ci def nenn ba godoron yooyu mu far yàqu benn yoon ba tey nit mën naa xool benn xool bu aay rekk xolam doxe ca yàqu du ci jariñooti mukk lam ne woon ñëw na ci addis ba inna rajula addis baa ngoog noonu la ñëwee ci saraa bi mu ne it waykat ba nee na woon soo dee sànni say bët rekk fu la neex xool doo ko téye mukk mën naa am day say bët tegu ci loo xam ne danga ci jële ak coona ndax mën ngaa yëkkat say bët di xool rekk yem ci loo xam ne wóor na la ne lii warisu koo xool waaye nag danga ci am bànneex boo xam ne itam doo mën teggi say bët sa ak seytaane dal la cay gañe nga wéy rekk di xool te dañu ne bu say bët tegoo ci loo wërta xool nga dal di teggi xool boobee kenn du la ca bindal bàkkaar waaye nag bu say bët tegoo ci loo xam ne waroo koo xool te daloo teggi say bët xanaa wéy di xool ñu dal lay bindal loola bàkkaar dañuy wax ne itam bët mooy jiwu bëgg loo gisul rek xamoo nu mel mën nga ko bañ a bëgg waaye say bët mën naa tegu ci loo xam ne da nga ko bëgg mbëggee goo xam ne doo ca moomat sa bopp te it bu fekkee mën laa jaar fenn ba jot ca mbaa na nga cay jote lu araam lay doon loola mën nga caa jële ñàkk a gu sar tàmbali àdduna wéy àllaaxira moo tax daal kon daal yaar yi moom muy bët ak làmmiñ téye leen bu baax dana taxa mucc bàyyi leen tam ñàkk leen sàmm fu ñu jëm rekk baax na mën naa yóbbe nit ak yàqu goo xam ne ak defaru du ca yombaat wa innaka in arsalta jooju mooy lam junjoon ca wayya na waqaala xidman shaahirun wa innaka ji moo nekk noonu mu yaari bayit yooyu waqaala waxoon na aaxaru kaneen laysa shujaahu déet jàmbaar ja allazi muy ka nga xam ne yax dana aar fawaarisahoo ay gawaram yow ànd ci bisub dëbbante ba dëbbante mooy jamante idaamal xar bu ndem xare ba tashta'ilu dana tàkk laakin na man waaye ka nga xam ne xob ba damm na tarfan ab gis aw sanaa wala mu lem maanaam téye xadama ndëggu anil maas yi wëlis xeeti mooy yàlla yi fa zaaka kookee alfaarisu mooy gawar ba albatalu bay aji jàmbaare keneen nee woon jàmbaar dëgg day mooy ki nga xamee ne fexe na ba téye ay bëtam bañ caa xool lu yàlla aaye téye ay tànkam bañ caa dox lu yàlla gërëmut mboolem cëram yépp mu fexe ba sàmm leen bañ caa mooy yàlla kooku de mooy jàmbaar waaye bokkut njàmbaar gi nga xam ne moom lañ xam ci aada te mooy gawar bi ànd gàngooram ñu dem ci xeex ba mu xeex a xeex ba wër ay àndaaleem mu mucc ñoom àndal mucc ndax ak njàmbaareem rek kooku day jàmbaar la ci aada mooy jàmbaar la ci niñ xamee jàmbaar rekk noonu waaye ci dëgg-dëgg nag jàmbaar daal mooy ko fexe ba sàmm ay cëram bañ caa jege ak mooy yàlla wala tukapir bul baril xaytu kunta foo man di nekk allahwa fo waddax ka ak ree ma taxarrukin ànd ak yëngatu wal laxwa ak neen mooy caaxaan wal idtiraaba ak baj-baji wa tataawula ak yuqamtiku ilaa tatalluin jëm ci yër xalaa xafiyin ci aj nëbbu mustalan lu man doon fa innahoo naka loolu badaa feeñ na alaamata tay fi mbir mu muy màndargam tooy wa xifatal xaqli ak wayefum xel tooy googu nag moo wayef xel benn lañ li man ñeel ka nga xam ne taxawada tàmm na ko dafa jàll ci way yi ne foo mën di nekk na moytu nekk di fo ba mu bari mbaa ngay ree ree ju bari mbaa ngay yëngatu ak a caaxaan di baj baji di yuqamtiku bëgg a loo xam ne sax dañ ko doon làq bëgguñu nga gis ko loolu lépp ñàkki teggin la te xel mu gàtt rek moo koy waral wakkun nekkal saakinal jasadi di aj dal aw yaram la dal majlisi fa jataay ba wala sim te nga taqoo assunta noppi bi inradin ànd ak dëddu du fat kon def na la jariñ wasbir te nga muñ xala sabbi ca ŋàññ wa wala tujib te bul tontu ahadan kenn wa ku nekkal kama ni ki waxe woon al adibu aji xam ja wala xadd wala xadd maanaam waxi kooka daa tàmbalee ci wala xadd danga nga ko gis léegi ci saraa bi id ngir at tasaa bubu ŋàññante maxattakaa bubi ànd ak fenante min aqbahil xisaali bokk na ci gën jaaboon jikko ya kat tabaaru bi ni ki dóorante wa kasratu dax ki barik tumiitu day rey alqalba xol ba faqal li lan na nga néewal ab baxkaree tur bi kon nga gërëmloo araba buur ba mu ni daal foo mën di toog na nga def tekk téye say cër téye saw làmmiñ bu la kenn waxee sax lum la wërta wax bu jekki di fayu xanteeg moom ni ki mu lay xas nga di ko xas téye sa làmmiñ rek am na lu waa ju am xam-xam waxoon mu tàmbali walla xadd daañu la ko nettali léegi ci biir saraa bi defal noonu rek ndax jekki di xastanteeg kenn mbaa di fenalanteeg kenn mbaa jekki di béeranteeka def yi mel noonu daal moom dafa bokk ci jikko yi gën ñaaw sori ay teggin lool ba tax na bu la ci kenn mën a yóbbaale mu ne nag ree ju bari moom dee ko moytu loo man ndax ree ju bari day rey xol te xol mooy nit ku xolam dee rekk aw na ci yoonu te xeedi bu ko yàlla dabaatalut ci yërmandeem rek du texe kon boo bëggee am ngërëmul yàlla sa boroom del néewal say ree yaa an yi dana jublu anna minal adabi naka bokk na ci teggiin al mardi yi jadi juñ gërëm an laa tukk sira nga bañ a baril al lahwa po wa daxka ak ree wal laxwa ak neen wala nga ne caaxaan wal ibtiraaba ak baj-baji wat taxarruka ak yëngutu wat tataawula ak yuqamtiku li tab talixa ngir nga yër xalaamaa la nga xam ne xafiya nëbbu na fa innahu naka loolu min xalaamati tayshi mi ngi bokk ci màndargam tooy maanaam xel mu gàtt wa xifatin xaqli ak wayafu xel wa ku nekkal saakinan di aji dal maa dumta li fekk sax nga fil majlis ci jataay ba fil majlisi mulaazima sumti tey aji takkoo noppi illaa an tus ala ndare bu def laa laaj xan shay'in walis dara fattu jiiba te ngay tontu an hu walis loolee bi xafdi sawtin ànd ak suufek kàddu wala suufeel kàddu aw taxtaaja wala ngay aajowoo ila suaali jëm ci laaj ga aw talabihi wala ak sàkkoom fa tatakallama te ngay wax ala qadril xaajati ci kem soxla sa wala tasida te doo dolli xalaamaa ci la nga xam ne tudd tarru def na la loruloo ilayhi jëm ci moom min zalika ci loolee fa inna fi sumti naka nekk na ci noppi sitran sutura waraaxatan akum nooflaay kama qila ni ki waxee fene ustur na ngay alxay ba sikk sa mastataata loo man bi sumtin ci noppi inna fi sumti naka nekk na ci noppi raaxatan ab noflaay li samooti ñeel noppikat ba dañ wax ak noppi waa kon waaye mooy ab noppikat rek wajaxal defal as sumta noppi jawaaban muy tontu in xay yiita ndeem nga ci tontu ruba xawlin baraan wax jawaabuhoo tontam fi sukkooti nekk na ci noppi wa fil xikmati nekk na ci xikma mooy nekk na ci wax ba am njariñ law kaana doonte nekkoon na alkalaamu wax fiddatan di xaalis la ko nekk as sukootu noppi dëhaban di wurus li waxoon ci way yi moom la saraa ne la dama la bëgg a wax ne la bokk na ci teggin yañ gërëm yañu sant te nga war koo sàmm ngay moytu po mu bari mbaa reeju bari mbaa caaxaan yu bari mbaa di baj bajee ko yëngatu fële nga yoqamti ku jëm fa xëy na sax bëgg xool loo xam ne dañ ko doon làq bëgguñu ku ko gis yooyu yëpp